actu du dañu ko dooleek mbas meek tolluwaayam ci biir réew mi tey ji nag ci samedi ji yam ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi ñu nekk Sénégal nag daal ne def lu tollook 937 tests ci biir loolu 18 yi moo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 18 yooyu nag am nañ ci 6 cas contact waaye amuñu benn cas importé waaye am nañ tamit lu tollook 12 cas issus de la transmission communautaire cas communautaire yooyu nag gox ya mu feeñ bokk na Dakar Plateau am na si ñetti cas fan Résidence am ci ñaar Almadi am benn HLM am benn Kër Massar benn Liberté 6 am benn Nioro am benn Waagu Ñaay am benn Pikine daal am benn cas 79 patients yi ñu hospitalisé woon nag wér nañu am nañu nag quatre grave bi mbas mi duggee ci biir réew mi ak léegi nag Sénégal wàññi na lu toll ci 15 543 cas moom la ñu daal di am positif ci biir loolu nag 14 161 daal nañ ciy wér moom lañ ci am ci ay décès li ñuy saytu nag ci lali hôpital li mu ngi toll ci 1060 ministre bi nag di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonteeg mesure barrière yooyu nga xamante ne nii kër docteur digle ne ko ngir xeex mbas mi daal di gën a mën a gaaw génn ci mim réew Ah, ñu daal di wax ci leneen daal di wax ci ki nga xamante ne ni nag ah, moo di Gaston Mbengue dafa daal di yëkkati rek ay kàddu daal di jëmale ah, ci Ousmane Sonko ne dafa fan ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ne dafa génne médiocru APR yi ndax ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko heure bu waxee rek lu tolloog fukki ministre génn di ko tontu yemu ca rek moom ki nga xamante ni moo di Gaston Mbengue daal di nay waxaat ne yàlla bëgg nañu bëgg goo xam ne du jël réew mi di ko jox kii di Ousmane Sonko moo yëkkati yooyu kàddu daal di koy jëmale ci leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko. ñu wéye ni wax ci ki nga xamante ne nii ah, moo di Mame Gor Diazaka ginnaaw ay sorti yu bëri yi muy amal ah, di wax li ko naqar yi ñu gis ah, guy gi 95 daal dinay tàkkale sévèrement ki nga xamante ne nii moo di Mame Gor Diazaka ne Mame Gor nekkul porteur de voix nee na moom guy gi moom mooy porteur de voix ndax moo yore kàddu armée bi nee na Mame Gor dafa génnoon doon xas armée bi ne militaires yi lekk ceeb rek lañ nekkee bango nee na Mame Gor lu ko neex rek la nekk di wax ba tëngee googee nga xamante ni sax fa la dëkk reconnaître reconnaîtruñ ko nee na buy waxati ne bàyyi xel da moom jii di taala jazaka te bàyyi ratatati ji rek chef de quartier sax du ko doon moom maam góor waxatuma nag muy nekk meeru Tëngéej ki yëkkati nag yooyu le kàddu moo di guy gi à quatre-vingt-quinze ñu jubali nag ca diwaanu gine lañ fa fekk rek moo di ginnaaw jongante bu metti bi doxoon ci diggante Alpha Condé ak Cellou Dalein Diallo jur nag ay violence yu méttee métti ca Guinée jamono ji nag ñuy wax ak yéen yëf yi nag daal dinay leer nañ ndax commission électorale nationale indépendante daal nay xamle ne kii di Alpha Condé daal dinay gagné élection yi ca premier tour ya ak 59 euh, virgule 49 pour cent des voix adversaire am bi nag di Cellou Dalein Diallo daal dinay génn ak 33 virgule cinquante pour cent des voix euh, buñ sukkandikoo rek ci les l'instance mi joxe yooyu les résultat euh, kon nag Alpha Condé daal nay jël troisième mandaam foofee ca Guinée ñu daal di ko jeexalee nag ci wàllum tàggat yaram ginnaaw bi Alioune Sarr jógee ci li nga xamante nii moo di bopp CNG ba tey amagul kenn ku ko wut yëngatu buñ sukkandikoo rek ah, ci sunu làmb ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram di Matar Ba daal nay bind nag ab lettre jëmee ko ci ki nga xamante nii moo di Mouhamed Ndao Tyson ngir bëgg mu jël poste président wu CNG bu fekkee ne intéressé na ko waaye si boobee nga xamante ni Mouhamed Ndao Tyson def na ko jëmee ko ci ki nga xamante ni nii ah, moo di Matar Ba waxul waaw waxul déet ah, ci post président boobee nga xamante ni nii kii di Matar Ba bëgg na Mouhamed Ndao Tyson daal di koy jël su fekkee ne rek intéressé na ko lépp lépp loo xamante ni nii rek ruusandi waat na ko jëm ci loolee 24 euh, actu dina leen ko toppal ci seen yonee ne jotaay xibaal lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daja lay doon ba ëllëg ak jàmm